fi jógee le pourquoi encore ce choix. parce que parce que dama parce que dama def erreur ñëpp di xaar mu génn baay ma mu génn défendre ma ñu koy saaga di ko wax n'importe quoi man li ma gën a metti sax c'est ça bu doon man la rek amul problème mais sama yaay dama xam li mu dama xam ban façon ndey la koi xam nga tey xam nga ku teel a divorce ak sa papa. Hmm. depuis tey bi ngay am ay. cinq ans gisoo kenn ku dul sa yaay mu génn défendre la moom défendre ma kese la mën après su may xas mu xas ma si ruq mais mënu ma ba bàyyi moom su ma bàyyi kan laay dese kan kan dese yàlla sant sëñ Tuubaa rek xëcaa moo tax ma woy ko delloo ko njukkal parce que man su ma soxla ma dara mën na bëgg rek ndax dama ko tooñ maa tax ay nawleem tey yàpp ko ma tax ay noonam tey reetaan ko loolu moo may metti yaa yaa si dama koy bëgg sax mais su ma demee ba xalaat ni mën naa ñëwaat et que gars yi parce que man xëcaa man yàlla moo def li ne ci man xëcaa ku bon xale du la bëgg nit boo bonee xale du la bëgg. nan nan yaay dugalal ma ci vidéo taf yi parce que li ngay def daf leen daan neex da leen di impressionné ñu gis euh, koo xam ni seen morom lan la jàppee ñoom xale yi. bërki dem benn xale daf ma ki vocal vocal mën naa la ko tegal léegi bu la neexee mu ne ma tafi na ma nañ lay laytu géej géej xam xam xam géej nañ la gis dama doon jooy. parce que xëcaa man boo duggee sama TikTok da ngay gis samay sañse reetaan ka foo reetaan laa xam ak e, TikTok xale yi ñëpp reetaan ñu yebal nit mu ñëw di ma gëm loolu mooy lu amul naan ma dama la bëgg bëgg sa yaay ma sama yaay képp ku may jaar rek mën nga ma jaar foofu ndax dama ko bëgg aw ma si moom sago. foofu la ma piégé tey ba pare ne ma mission mission accomplie mission accomplie dañ laa yónnee. loolu lan la wax. Mm-hmm. mais am nga numéro sax numéro numéro expresso parce que tey bu doon man damay fen kon kenn du profité di génn di taf photo booy bi. oh def na ko ñu bëri mais man pourquoi moi. ma rek mais sant yàlla encore une fois rek. yal na yàlla xeeb dolli yal na mm. yàlla defal la jàmm amiin ñu ngi lay ñaanal ci lii nga jógee yal na doon loo xamante ni passage la boo xam ni boo ci jaaree suñu borom day ubbi sa lépp suñu mm. borom day yaatal sa lépp suñu borom dina la kàttanal te yàlla mën na ko am na ko moom mi ñu sàkk hmm. yàlla na la yokk doole en tout cas nous sommes de tout cœur avec toi hmm. nous qui sommes dans le milieu nous qui sommes des célébrités tout comme toi nous hmm. qui sommes dans les réseaux ñi ngi lay dooleel ñi ngi lay euh, euh, euh, massaw itam ndaxte li ko dal mën na ma dal man mii te bu ma dalee itam wax dëgg yàlla dina am lu ma metti comme ni mu ko mettee kon nag nanu jàpp te gën a góorgóorlu veiller ci sunu ay téléphone ngir mu bañ ñu dal ndax leçon la boo xa ni ne dalay wax veiller encore une fois de plus téléphone doom nday xam naa ni dinañ amaat beneen ndaje boo xam ne dañuy toog mu gën a euh, kii ndaxte lii ouverture la woon rek pour que nga xamal sénégalais yi que ni euh, Tafi est toujours là votre artiste est toujours là et il va continuer véritablement à vous donner le maximum de plaisir et d'ambiance ñu bàyyi la nga tàggoo wax ñu projet yi fu mu toll également bon waaw juste Kheucha man aw ma ay projet ah. waaw pourquoi ay projet pour benn projet kese laa am. Hmm. muy xool sama yaay nu mu nekkee si jàmm ma benn dix mille jox mu kontaan mu ñaanal ma damay dem sax ba à fin damay ne est-ce que duma jéema a jéem a dagg sax billet dem sax Europe toog fa wala gérer sama vie ailleurs wala bàyyi lépp toog jàpp sama ñaamaru bu woon sama